Ah laan bikum état bu senegaal fa fas yéene laaj ndàmpaay ñi nga xamante ne ñoo sooke yàqute yi amoon ci dëkk bi ci manifestation yi fi xamoon ba tax l'observateur ne hee état bi de loolu Sonko la ci jublu enquête yéene kaay na ko ak Juan Branco ñoom ñaar ñooñu fa ñoo tax nguurug Sénégal fa constitué partie civile vox populi dëggal ko yow fa ngay xool état bu Sénégal ay awokaam démb fañ doon xamal janook taskatu xibaar yi xamle na nguuru Sénégal gii fa fas yéene topp Sonko ak Branco ñi nga xamante ne ñoo sooke yàq rajaxe taxal yi xamoon ci réew mi rawatina Ndakaaru njaay ci ñaxtu yi weesu comme lu ji njaag na ñu ne ñooñu ñooy njaag léegi fa ñoo war a fay xalal ju bari ginnaaw bu ñaawloo ñi nga xamante ne fa ñoo def ay signature di sàkk ñu bàyyi Ousmane Sonko maanaam professeur Serigne Diop ak ñam xàndal loolu ñu def avocat état bi fa koo ñaawlu yaaw seetal ndax fa wax ne ñoom bu fekkee fa ñu ak yelleefu doomu aadama di xeex wàllu droit naka la mën a sàkkoo Sonko loolu fay firndeel ne ku nekk président bu Sénégal séparation pouvoir amul lu la neex ngay def yoon faham te fay def liggéeyam nañ ko bàyyi mu def liggéeyam yoonu njiitëram Macky nekku ci ba tax léeg sa ko yéen kaay ne état bi kay fa bañ ba tëdd ca naaj wa ne bu ñu bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso déedéet bañ googu état bi bañ nag ñu bàyyi Sonko fa ko jaarale ci ay awkaam ñoo ko wax démb <laughs> leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne njiitëram Macky Sall ci boppam mooy ki xam ne fa teg bët xalalu Ousmane a jël xalalam ji de ba mu jeex tàkk turbine yéen kaay ñu xool su fekkee fa ñu wax ne Ousmane Sonko fa war a fay li fi yàqook ndax moo ko sooke loolu yëpp bu ko fayee lan la desee ci xalal fay jeexal tàkk gp yéene kaay na mbiri Juan Branco yi état bi bàyyee gut ko ba léegi de libération na ko faala ci yokkal dugg gi mu duggoon Sénégal te jaarut yoon moom Juan Branco tubaab ba ña ko ca jàppale woon ba mu dugg ci réew mi ba léegi gaa yi ngi wër di jàpp de yaaw fa ngay xool mbër mi ñuy wax usine doole gaa yi jàpp nañ ko mook benn contrôleur ca impôt defeere nañ leen ñi bañ ñu defeere leen ci yi maanaam tere leen bokk mooy waa gëm sa bopp yi cadre ya ca tribune yéen a fa ñoo wax ne duñ seetaan mukk ñu jël ay candidat bloqué leen ñu bañ a bokk ci wote 2024 jaaree ko ci parrainage bi fa nga ñëw andi sa parrainage ñu ne la matuloog doublon fexe daal ba génne la loolu la bañal bugaan ak ñeneen critique yéen a kaay ne benn bokk yaakaar moom seen candidat tànn ko fi mu nii risque yu mag a ci nekk ñeel njiit mi si di quotidien na ko voilà faa xamal leen ginnaaw bu lenn ci responsable Macky Sall teg ko pression ngir mu wax kan la tànn mu nekk seen candidat ndax fi mu toll ni ñoom ñëpp fa ñu njort ne njiit mi fa bëgg a bàyyi daal ba parrainage bi yegsi na këtt na jonn mu doo di wax ne diw tànn candidat su boobaa ñi nga xam ne tànnul leen duñ am jot mën a uti parrainage ba bokk te loolu nag ñu ne duñ ko nangu ñeneen ñu bañ ne duñu nangu tere gi nga xamante ne la tere doxub ñaxtu fii Sénégal jamono jii mooy Guy Marius ak ñam fa yéen a a kaay ne bi mu demee na ngir déposé leetar boobu ca ca dalwaay jëruñ di dégg wàllu biir réew mi gars yi dafa ñëw <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Air Sénégal kër ak roppalaan gi ba léegi daal fa am ay jafe-jafe ngir dox ni war a doxee l'évidence yéen a kaay ñu ko xamal la dox nag bu baax mooy port autonome bu ndakaaru fi mu toll ni américains yi fañ ko certifié ci li ñuy wax code USPE lii yéen a kaay moo ñu ko xamal info yéen a kaay fa ñoo xamal ne këru taskatu xibaar yi média yi ci Sénégal journaliste yi fa ñuy xamaat jamono ji assise nationale ngir saafara seeni jafe-jafe ginnaaw buñ ko waxee laas yéene kaay dëggal ko ne média kay fa bëri ay góom de yu ñu war a faj wal fajir yéene kaay ne seen assise nationale boobu ñetti weer lañ ko fas yéene xamal càmbar xool bu baax lan mooy problème bi ndax fi mu nii këru taskatu xibaar journaliste yi fa ñuy dund jafe-jafe yu bëri ak coono bu du xaaj du jeex waa grand place ne jeune reporter kilifa fañ leen koo teg ne ci tolluwaayu këru taskatu xibaar ci jafe-jafe yi nekk ñàkk xaalis ak moyens yi xamut ak métier mi fi mu toll ni ku jóg dugg ci fa ngay gis ko am xaalis rek taxawal sa rajo wala di ca wax lu la neex wala nga far ba adduna bi yëpp xam na ngaa far wàllu gergeeg caaxaan meeg lépp daal fañ ko bëgg a jëlee ci métier mi ka jëlee ca premier adjoint au bu ndakaaru Abbas Fall les sëkk yi ne xamal ne delloo na oto ba nga xam ne fañ ko ko joxoon ba waaye terewul nag bureau ba moom ma nga téye caayu <laughs> Sénégal bi nga xam ne soxna Marème Faye Sall première daam moo ko taxawaloon di ci dimbale sénégalais yi néew doole fondation boobu fi mu toll ni tas nañ ko xamatul maanaam fukki fan ak benn ci weeru ut bii ci lañ amal li ni mel la amoon di lu garaaw di ñaari agent GIGN yi nga xam ne fañ leen a tegoon loxo ci wàllu faux billet ñaari milliards tey l'observateur fañ xamal lépp lu xam ca enquête ba nañ naroon a séddoo xaalis baak fan la milliards ya bàyyee kook yeneen yi ni mel bés bi yéen a kaay na ñaari agent GIGN yooyu kay loolu ñu def noonu fa salteel gàkkal deru GIGN nga xam ne corps d'élite bu mag la ci armée bi ba tax au commandant fa daal di dalal xel yi ne bu soobee yàlla daneen fexe ba lépp luy gàkkal koor bi ni mel ñu dindi ko fi libération moom fa xëy di ñu xamal ñaari ndaw ñoo xam ne fa ñu mujj faatu ca diwaanu Fatick ginnaaw buñ demee na fañ leen di cangat wàllu xar ga fuufa yi daal ndax bañ leen di cangat fa ñu mujj lapp faatu ke leen doon jéem a faj nag ca seen rab yañ xàndal ñu ne moom it teg nañ ko loxo man ma teg loxo l'observateur fekk fa docteur yi nga xam ne seen liggéey mooy opérer am ak la ñuy daj ca seen biir liggéey ba man ca biir yéen kaay ba ah. nga yeew fa ngay xool docteur yi opéré bu ñu opéré deret ja fa leen di wër ay mbir yu doy waar it fañ koy gis loolu ñuy def nag loolu yëpp mooy fexe ba askan wi xam wér gi yaram rek waaye métti mi yombut de <laughs> waa ma ne fa ngeen di góor góorgóorlu rek yàlla leen di fay métti mu doy waar la yow tiim biiru doomu aadama xotti ko taret wala tiim boppu xotti tiim xol xotti faj ba boromam jóg dox àllul jàmbar dëgg koy def kon na gàcce ngalaama yéen